yàlla na fi yàgg te wér xam naa nag wax ji du gudd tuuti rek xam naa wax ji nag du gudd ah day ndigal ndax fa mu la wax soxna si na ko nañu ma jox ma sànni ji kàddu samay kàddoog moom mën naa gàtt mën naa gudd ndax li may wax ci moom mooy diggam ak sëriñ bi rek tey diggam ak sëriñ bi day wax neel sëriñ bi nee ko ak sëriñ bi ne ma nee ko wax ji sax xam naa day bëgg bëggam rek waaye li ma wax doy na ndax ci bëccëg ba tey soxnaam yu baax yii ñu ngi may indil ay bernde kenn ku ne ma dem fi yow te fu ne wax naa fa te la ma waxaan rek laay waxaan yéen dey ah, am ngeen xéewal daje ngeen ak xéewal ndax sëriñ saaliw ak sëriñ becco day mel ni lii ku ko gis da ngay xam ne coobare la coobare sëriñ bi la ndax ne fa nga ne ñu daje mbooloo mu toll nii te kenn ko lu mel ni yaa ngi toog loolu sëriñ Saliou la nee naa ko bërki démb dey ci France laa ko waxee ma ne ko man de sa am na lu ma jaaxal ci ñoom loo xam ne coobari sëriñ bi la ndax bis bu ne ñu gën a bëgg tey loo wax nit mu def ko te lu ñuy def fàtte ko loolu nag ku dun murid saadix boobu cër amoo kon day mel ni ay cantaango kun ngeen waaye nag ay murid saadix ngeen murid saadix nag yombut ndax loo joxe fàtte ko te bis bis nga gën a bëgg te lu ñu te nga tegoo ko noonu la murid saadix di mel te yéen wowu melo ngeen yor ndax ba ma leen xamee ba tey ngeen ànd ak sëriñ bi mos leen a arrière leen dellu ginnaaw mos leen yox yoxi sëriñ Béthio nag cër bii ko sëriñ Saliou defal mu wër àdduna loolu ab liggéeyam la ko sëriñ bi fay li ci def nag coobari sëriñ bi la ndax bari yu ma fekk yoo xam ne yii ci diggam ak sëriñ bi loola ku dutu murit du ko def ku bëggut la ngay la ngay wutit du ko def dafa am benn bis daara xel koom yi xam nga daara yi fukki daara la woon ak te booba daanaka lu man ñeenti junniy nit fukki junniy nit a nga fa ñu manqué yi bool mu ñëw sëriñ bi tasanteeg dong yi wax ma bool yi ma ñëw ndongo li ñëw dima ma ko déy ma ko sëriñ bi ne lu mu doon wax fekk sëñ béy nga toog ne ma ne ko ah, moom da ay bool la wax ndax bool ya fa ne dafa yàqu sëriñ bi ne ma sëñ béy ju mii di bëgg ko wax ndax lima ko teg bari na bu ko yëg de bu ko ko wax de danga nga seet keneen koo ko wax mbaa bu ma jógee génne xaalis jox la nga jëndi ko sëñ bi di wax ak keneen sëñ bee gene ma waaw ah loolu ndiganteeg sëriñ bi ma ne ko sëñ bi ko nee bu ma la mu ni dimbali ma wax ma ko rek ndax dama ko bëgg a dégg ma ne ko mbirum boole la doon wax mu ne ma dimbali ma jox ma ndigal li daal di laamu poosam yëgati téeméeri junni jox ma ne ma lii dama la ko neexale ngir ma jox ma ngir nga jox ma ndigal li sëñ bi for sëriñ bi mooñ for ca tuuti ma dem ne sëriñ bi téeméeri junni yi gën moo ko jox nee dama dama koy neexale ngir ma jox ngir ma jox ko ndigal li sëñ bi muñ dal ne ah ndigal li ku cay neexale téeméeri junni